donc dis-moi honnêtement imagine na Sonko dina tëdd ci néeg tëj ko ni ñuy ni ñuy maasoo laa Sénégal xam ko dañuy tëj néeg bi taal ñaari sondeel mu lëndëm këris nga sol slip tëdd jigéen di la bës noonu la ñuy maasoo ah. mën nga imaginer Sonko na def loolu yow. pas forcément. Ah, man laaj la benn affaire man xam naa ne moom Ousmane Sonko bu fekkee ne ndaw si wax dëgg la c'est l'homme qu'il faut chercher. c'est-à-dire. as nit ku toog sol tubéy wane ginnaaw yow ni nga toog nii deux personnes mënuñu la amassé ci maladie lu metti yu am douleur ni nga toog nii boo amee bu dee mos nga déggoon ne nga dégg am nga hernie wala nga la ma boo toogee ni mu metti nii dee sax pour nga toog day metti ñaar ni mu ñu la amassé c'est pas possible ça justifie quiconque médecin yaa ngi may dégg professeur yaa ngi may dégg keneen si ñi may dégg je les boo toogee nii ñaar ni mu ñu la amassé soxla si xaa nga tëdd sax ok léegi yow ki toog sol tubayam di kilifa bu toll Ousmane sonk ndaw si nee na daa dégg ñu naan am naa man yu Ousmane Sonko ku sol tubayam toog même boo ko commencé sax yàlla def natt ko mu génn ndox génn ci moom nan la mën a tuura ba suuf ba nga mën a jot ma yoo kon Ousmane Sonko fort na ah. il est très la mën a génne fa ndoxu mën yu non foofu fa la ci ndoxu ma yu war a tudd la ci war a tudd nit ku sol tubayam toog wane ginnaaw mais soxna si ndox warul génn ci yow bu génne bu génne sax kenn du ko gis kon wax jooju est-ce que cohérent na ak wax ji non ndaw si wax ji mu wax yëpp est-ce mën na ko déglu moom ma ko wax ma ko de nee na Ousmane Sonko bu ñëwee day toog ñu maase ko du sax tëdd moo ko wax. moo ni encore mu dégg ndaw si aji saar di wax ak nit mu ko ndax daa ndax daanu mu ko daanoon man sax amu ni mais mu yaboo ko ndax am nga ndox mu ne ko am naa ndox mi non c'est dañuy wax dëgg gi. parce que l'heure est grave mais nit ku sol tëbayam toog nan nga mën a amee ndoxam nan il faut ñu respecter sénégalais yi il faut nit ñi xam ne ay kilifa dañ leen di déglu am xel di réfléchir yaa def defoo leen rek moo tiital nag du ma ko nëbb man leen rek moo tiital. Hmm. et ça m'a fait peur. lan moo la tiital. ni jiñ viol rëy Ousmane Sonko fii la taxaw ci problème mu 94 milliards. ne bu ñu ko wooyee mu wuy du xaar immunité parlementaire li may xam nga ko Sénégal xam nañ ko moo ko wax. 94 milliards mu jiiñee ay nit sàcc daf ne bu ñu ko wooyee mu wuy ji du xaar immunité parlementaire day wuy jil boppam Ousmane Sonko ko waxoon mais ma yaakaar ne ñu jiiñ la viol moo gën a rëy lii mu taxaw dëgg këram ne du génn këram fekk amul. am amul amul amul amul amul uh, amul uh, kii. Uh, contexte yi du benn. non bii gën a garaaw. le viol est criminalisé. waaw moo tax mu waroon dem. waaw parce que dégg nga man nag kaay ma la man eh, ma je te défie. contexte yi du xale bu ma jiiñ viol te violé wu ma la man boo xëyee huit heures ñu convoqué la sax ma fekk ma toog les yeux dans les yeux may la ko na fu ma la violé ah lan ma du ma xaar parce que da aussi. doo xaj sa kër. waaw mais waaw mais xaaral xaaral non wax maay wax pare gu. non non non birima nekkoo jàkkaarloo ma rek non. Ousmane Sonko non non nekkoo jàkkaarloo non non non ma ne nekkoo jàkkaarloo dimbali ma rek. Ah, Ousmane Sonko non dafa nekk ak ay nawlem muy ay soxnaam ñooñu am ay soppe am ay noonu nekk ak ay doomam xool nga poids bi ñu pesé tey est-ce que doon woon gën a neex tey Sonko dem le lendemain matin toog jàkkaarloo ndox si. démontrer que c'est faux dindi poids boobu ci famem pourquoi parlementaire et puis d'où vient le nom Macky Sall d'où vient le nom Macky Sall. xaaral balaa teer. waaw. nga affaire 94 milliards yi. ko méngale ak accusation de viol le viol a été rek le viol a été criminalisé Ousmane Sonko nee na am na inform ay avocats am nañ information ne. bu demoon wuy ji ñu tee ko te xam nga affaire viol crime la instruction bi mun na dem ci 6 mois bu fekkee ne respecté nañu yoon mbaa ci ñaari at maanaam dañ lay jël dugal la rëbës bële juge bi naan day instruire heure bu ko neex la ñuy saisir sa dossier naan doog a doog a teg li nga xam ne ah, moom mooy procès xaaral rek rek ku mel ni Ousmane ko nekk leader de parti quand même du foowee avenir am balaa nga naan naam ne fa dina jël le temps organiser li nga xam ne moom mooy sa défense jéem a comprendre li nga xam ne moom moo ko dal ba pare beneen affaire bi xale bu jigéen bi moom salon de massage bi nee na le 2 bi fa Ousmane sonk mujjee ñëw masewu dégg na xale bu jigéen bi ko accusé di waxtaan ak ay nit euh, di di di am lu muy wax ak ñoom. mais loolu noonu. mun na waaw mais bàyyi ma ma terminer loolu noonu. xëy na ah, am nañu ay faisceaux d'indices yoo xam ne jàpp nañu ne xale bu jigéen bi dañu ko teg ci yoon eh, pour mu accuser ko xëy na loolu moo ci dugal turu Macky Sall Birima li gàttal mooy li gàttal mooy li gàttal mooy Macky Sall taalul otoom dem fekk Ousmane Sonko këram ne ko Ousmane mu ne ko sonk mu ne ko jógal mu yóbbu la massage yóbbuwul massage Ousmane Sonko teg ko ci taabal ji andiwul aji saar ne ko maasel kii fii maintenant nag ki taxaw ne moom imaam la nitu diine la lislaam ko ñor te dafay lépp lislaam di tënkul ci lay taxaw mais warul dem tëdd ci ay bu dee moom moo ko avoué Ousmane Sonko ni mu toll ci réew mi war na mais un sénégalais sénégalais lambda normal sax du dem ci gargot yooyu kaa na waxante dëgg nag bés ba na ngeen bind ne am na am na ku taxaw fi ko dénoncé ne am na ay gargot ay affaire ay affaire massage euh, yu am ci diggante ay yu am ci zone bi yëpp bés ba na ngeen bind ko man mii ñu waxal dem naa di maaso ci zone boobu ñu proposé ma yooyu kër laa fa gëj. bi non mais non attends je par respect à lui et par respect à ses militants. il ne devait pas se mettre les pieds là-bas. waaw mais avec waaw waaw waaw deuxièmement deuxièmement madame ma laaj la. yéen gis naa tey ngeen bind journal bind yéen journaliste yi ñu bind daanaka ne ndaw si kumbaam daa woyof yéen a ko bind de ni nga ko décrire rek mooy ndaw si caaga yéen a ko bind journal Sénégal ñoo ko bind waaw Ousmane Sonko buy faj ci caaga ji fajoo non may ma may gale yéen yéen a bind ndaw si cagala man bindu ma ko xaw ma ndaw si. journal bi ko bind ko bind dina na ko assumer. waaw mais ma ma laaj journal boobu est ce que léegi non attends. journal bi buy dem di faju ji nit jigéen médecin yi nekk fi ñu baax ñu ne fi dañuy fekk mu caaga mu koy fekk. waaw Birima léegi may ma may ma may ma nag.